mu nekk seen candidat pour la présidentielle de 2024 waaye aussi actualité bokk na ci mbirum immigration euh, clandestine bi nga xam ne jamono ji nekk na fléau boo xamante ñëpp a ngi koy xeex mais balaa loolu dañuy dugg ci les informations du jour Issa Tine voilà euh, léegi na jër de tàng na tey ca Kédougou mu di nag ay jàppante yoo xam ne moo fa dox ci diggante ay ndaw yu dëkkee ca Xosanto ak Mama Xona Xono mu di ñaari dëkk yoo xam ne euh, déjà dafa am ay jafe-jafe ndax nag ndaw yi nga xam ne ñooy manifester lëkkale euh, Sabadola ak Bembu euh, ñu daal di wut sax ay xeer ak i pëna teg ko ci euh, yoon woowule la ko waral nag moo di ne dañoo jàpp que ni préfet bi dafa daal di modifier benn arrêté boo xam ne moo fa njëkkoon a am ndax arrêté bi nga xam ne moo fa nekkoon chef de village yi ñoom ñoo doon présider commission de recrutement yi ci wàllu main d'œuvre locale bi ak sous préfet yi ñoom les sous préfets des arrondissements de Sabadola ak Bembu ak préfet bu département bu Saraya ñoom ñoo nekkoon simple coordonnateur

léegi nag xadis la bi ñu ko soppee li nga xam ne moo ci ñëw moo di ne autorité administrative yooyu nga xam ne jusque là ay coordonnateur lañu woon léegi ñoom ñoo nekk ay président de commission mhm. loolu nag moo waral askan wi ne duñ ko nangu parce que ñoom juste dañoo nekkoon rek ñoo xam ne dañ cee euh, nekkoon ay coordonnateur léegi nag ñu jiite commission yi à la place des chefs de village xëy na li ñuy jàpp mooy euh, bu ñu demee ba ci recrutement yooyu le mu mhm. main d'œuvre locale dañ leen di léser mhm. euh, te loolu dina waral ba xëy na ñu ci bëree bëri li ñuy wax souvent ci or ba nekkee ca Sabadola moo ne askan wi duñ ko gis daanaka pënd rek la ñuy gis ci mbir mi mhm. euh, tey nag mu am ay ñaari doomu yoo xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan ak juróom benn yoo xam ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu waaye xibaar buñ mujjee jot moo di ne daal nañuy retiré waat en tout cas arrêté boobule donc muy encore euh, loo xam ne am na mhm. ginnaaw bu ay décès amee ñu doog a wut ay solution yoo xam ne teg nañ ko ci ah lu spécifique zone boobu mooy Xosanto c'est des zones euh, zone boobu dafay nekk zone nekk loo xam dafay gëj tout le temps bu ñu amoon affrontement ba fa amoon euh, il quelques années de cela entre euh, les ressortissants burkinabé ak ay maliens ba amoon na plus d'une dizaine de personnes yu ci ñàkkoon seen bakkan bi sax benn bi euh, ressortissant la parce que kenn ki ci xibaar yi ñu du sénégalais keneen ki ci des sax ñenn ñi ñi ngi naan mbokk la en tout cas ci maire bi nga xam ne moo fa nekkee foofu la ca xosantu mais on va continuer les bi muy drame mu émigration xëy nañ ci ci rek mm-hmm. ci brève yi mm-hmm. lu personnes euh, ci lu euh, ñoom nag ñoom ñooñu le bokk na ci fukki euh, jigéen ak juróom ak fukki ndaw yoo xam ne seen i at matagul fukk ak juróom-ñett ci at ñoom nag daal dinañ leen di sauver ci waax yu El Hierro Tenerife ba ci Grand Canary ni ki diggante samedi ak dimanche donc kon muy ñaari fan yoo xam ne 871 personnes jóge nañu fii nga xam ne moo di dendu Afrique daal di fay dugg mu di loo xam ne quand même lu yéeme la beneen bi muy la xew ca Maroc nee nañu fi mu nekk nii bilan bi mu ngi ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak benn Euh, ci ay doomu aadama yoo xam ne ñoo ci jëlee gaañu gaañu mais ñaari junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak benn ñoo ci ñàkk ñàkkagun seen bakkan muy 2681 personnes donc ñoom ñoo ci faatoogun bu ñu sukkandikoo ci ministère de l'intérieur bu euh, Maroc waaye nag ndimbal yi mi ngi wéy mm-hmm. réewum Sénégal nee ñu dinañ fa envoyé nañ fa déjà ñoo xam ne euh, dem nañu ngir ñu mën a amal ay sauvetage ñeneen itam mu di waa France ñoom itam daan nañuy débourser de l'argent mm-hmm. ngir dimbalee ko waa Maroc ñeneen ñoo xam ne jàpp nañ ci sax mu di waa Algérie nga xam ne seen diggante neexul woon mm-hmm. finalement accepté nañu ledd euh, bi nga xam ne moo war a jógee Algérie ngir ñu dimbale leen ko ba ci Qatar ak Émirats arabes unis xadisi mhm. la alors élan de solidarité bi gis nañu jamono ji mi ngi def son bonhomme de chemin ñu bëri daa ngi mastawu suñu euh, xarit ndax bu ñu nee euh, Maroc xam ne y a des suñu lien ak Sénégal dafa c'est très fort y a une forte communauté sénégalaise foofu ca Maroc di leen mastawu rek xanaa di leen jaale Issam Mbaye l'actualité beneen beneen boo xam ne aussi am na muy Sonko namm naa la Sonko namm naa la nag dañ koy bañ ci ay stade bokk na ci stade tournoi de football bi nga xam ne dañ ko doon organiser euh, mu di euh, ca commune bu mbaam commune bu Mbam nag euh, mi ngi nekkee ci arrondissement bu Djilor ci département bu Foundiougne Sonko namm naa la moo waral ñu daal di wax que ni en tout cas dañ ko def tournoi coupe du président Sonko noonu lañ ko tuddee woon mais finalement dañ ko daal di interdire ka ko amal nag moo di sous préfet ba nekkee ca jiloor ci fi nga xam ne moo di arrondissement bu Mbam mm-hmm. département bu Foundiougne xadisi <laughs> ah <laughs> wax ngeen fi waxu waxu xosanto wax ngeen fi uh-huh. waxu waxu euh, waxu Maroc immigration clandestine bi nga xam ni tey mu ngi def ravage ci sunu ci sunu jeunesse euh, wax nañu fi itam euh, lu jëm ci wàllu yaakaar naa ñaari thèmes yooyu uh-huh. bokk na ci lu nga xam ne man gën na marqué sama attention uh-huh. benn bi mooy ay doomu Sénégal yu ñàkk seen bakkan ca diwaanu ca diwaanu Kédougou ñu ngi massawu d'abord mais nañu ne bilan ça passe de de deux morts à trois voilà deux morts à trois bu mu ci mënta doon dafa métti ndax ba kenn moom euh, kenn amul njëgam euh, zone yooyu nag zone la yoo xam ne man xam naa ko bu baax dans le passé euh, lu ko dalee xasantoo ba dem ay Sambarambougou su ma tuddee Sambarambougou ñu dëkk foofu xam nañu ko. dem naa fa def ay émission ay bémbu en tant que journaliste ay bémbu. donc zone la yoo xam ne déjà sécurité bi bëriwul. Mm-hmm. zone la yoo xam ne déjà ñi fay daje daanaka dox daje ñoo fa nekk. donc yu mel noonu bu fa explosé mun na indi jëy kon rafetlu naa lool bu fekkente ne arrêté bu nga xam ne moo indi jeexi jaaxa bi retiré nañ ko loolu je pense que bu dee mën na indi accalmie dañ koy sante suñu borom. Mhm. beneen thème bi immigration clandestine. Euh, bokk na ci point yi ñu war a aborder waaye wax sànq de yaa ngi doon wax ne de arrêté préfectoral bu ñu joxe nga ne c'est pas important mais ce n'est pas une première ñu gis ni politique di dugg ci li nga xamante mooy mbirum sport dañuy dem yaa ngi wax ne tu trouves que c'est pas important. mais dama ne y a des beaucoup plus importants nga yenn saa. mais est-ce que loolu aussi de régression euh, démocratique je m'explique xam naa la bàyyi nga mm-hmm. daaneel. Mm-hmm. maanaam bu ñu demee ba dañuy xam ne daf fi nekkoon à la limite lu banal. Mm-hmm. dañu doon gis dañu doon tuddee sax ay drapeaux euh, ay ay ay acteurs politiques du du def télé bi bu ñu demee ba mu am arrêté préfectoral parce que dañu ko tuddee koo xam ne c'est un acteur politique. même s'il est de l'opposition est-ce que loolu du recul démocratique. xam nga yow journaliste waroo wax. lii moo tax préfet bi jël jël jël jël jël jël kii parce que préfet man gisuma liir naa arrêté bi gisuma fu mu bind parce que ngeen ko tuddee diw moo tax ma ne na ngeen ko arrêté hmm. préfet dafay motiver trugam yenn saa tam dina am information boo amul yow moo tax man dama jàpp ne ñun man mënu ma toog ci plateau télé nii lii moo tax préfet arrêté arrêté arrêté arrêté rencontre bi parce ma fa xaw ma exactement lan moo ko xaw ma ndax am na ay menaces yu pesé woon ci trouble trouble loolu loolu la bind man ci loolu lay jàpp maintenant nag su doon dafa taxaw ne ma ah dañ tuddee tournoi bi diw moo tax ma arrêté ko laa su ma neexee ma attaqué ko ma ne ah préfet loolu waru la ndax Thierno Ahmed si tuddee nañ ko coupe ca diw Issa tuddee nañ ko coupe ca dëkk sangam mhm. ainsi de suite ainsi de suite saane tudd nañ ko coupe ci dëkku sangam mais préfet waxu loolu kon yow fu toll nii ñun lu ñu war a jàpp mooy li ñu préfet waxagum ba ñu gis leneen. mais bu dee loolu la da nga koy ñaawlu quand même bu dee bu dee dañ ko interdire pour ay sonko nam naa la da koy ñaawlu. mais munoo munuma munuma munuma munuma jiitu xelu préfet. yaa mhm. waxuma loolu. Mhm. man damay des ci li ma préfet wax. préfet dafa ne am na menace à l'ordre public trouble à l'ordre public mun na am. Mhm. donc man ma waxoon nag leneen ci loolu nag laay sukkandiku pour pour commenter loolu mais fu mu doon li ma préfet jàpp lu wax ci lu laay sukkandiku pour wax ne wax dëgg yàlla préfet moom mooy président la république ci zone. Mhm. préfet moom mooy assurer suñu sécurité ak suñu di ko liggéey ak force de l'ordre ak sécurité ci zone bu gisee mbir moo xam ne mën na indil zone bi ay jeexi jaaxa am na dogal boo xam ne mën na ko jël pour loolu bañ a xew. d' accord alors ñu dugg dans le vif du sujet euh, parce que temps bi moom mi ngi ñuy commencé dañuy dépasser carrément euh, le président de la république euh, Macky Sall choisir ki nga xam ne mooy le premier ministre Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar.